daa leen ko wax di da yàgg naa leen ko wax di ngeen am da nga am taw tawfeex rek lañ ko may xaas la ñu am ñoom ñun déet nekk déet nekk si liggéey xas dégg ci xas yi xaas la ñu am xaas la ñu am bu wér a wér a wér yoo xam ne tawee ba ñëpp war nañ cee ñee te ngeen dund ci fàggu yàlla rek dañ ko bale xaas xaas ngeen am waxuma tawfeex tawfeex ku bëgg sëñ Tuubaa am na waaye yéen xaas ngeen am. auzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalina sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi wa salama taslima wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi din wa radiyallahu an cheikh alxalifati alham li tariqati almuridiya acheikh mahamadul muntaxa almbakiyu xafisahu llahu wa rahahu wa ayyadahu fiina wa nasaruhu wa atama ma nawaytuhu fi sirrin wa allanin bi barakati sayxina wa qurwatina wa wasilatina wa xabibina wa qurati ahyunina wa tabibina wa jaahina ahmadu ibnu muhammad ibnu habiballah asayxul qadim qaada allahu lahu mbokki jullit yi tedd yi mbokki gox yi fasantikoo yi mboolem nekk moo xam fii nga xam ne mooy Afrique ba mboolem yi nekk ci diaspora bi ba bitim réew ñëpp ñoo ngi leen di boole nuyoo bi nga xam ne moom la nu yàlla boole te mu doy nuyoo walis bépp nuyoo ñu tibbeeku ko sunu xol jëmee ko seen jëmuy tedd yi te moo di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. muy baat boo xam ne yàgg koo paasante du ko tax a sàppi mukk-mukk kon nag ñu ngi leen koy siyaare di leen ko nuyoo bu baax seen nongol daara Ibrahima Seck kàddu gi di bee ko fii ci Touba Kaolack incha allah fi mu baaxoo baaxee ko mel ci gannaaw ñoo ngi woon ci xasida gu tudd min al-lawhil mahfuz ak yaasal wujudi xasida yoo xam ne lépp dañoo jëm ci tawhid wéetal borom bi subhanahu wa ta'ala tey ñoo ngi waat ci geneen xasida goo xam ne gu siw a siw la defe naa ne képp koo xam ne miin na xasida yi miin na ko même ku miinut xasida yi sax dégg nga ñii di ko jàng doon tax xamu xasida gi mooy gan xasida ak fan la dalee waaye ku miin xasida yi dëgg-dëgg da nga xam ne xasida gi buñ ko tuddee da ngeen xam muy barakatul lasil wujud wal xidam xat wajaba loxo lanaa tunmil xidam muy xasida goo xam ne dafa jëm rek ci wéetal borom bi subhanahu wa taala dana wuteeg nag bi ñu génnoon te mooy tontu ñaari malayka yi mooy mina lawhil mahfuz ak bi nga xam ne Sëñ Tuubaa moo waxal boppam ne ku ko mokkal ma dugg sa biir jëmm ba jeex ca tàkk te dootuma ci génn boo bëggoon génn ci man sax doo mën a génn ci man Sëñ Tuubaa te mooy yaasal wujudi boobu kon dafa doon xasida yi nga xam ne dañoo jëm ci taw tawhid waaye ni ko sañ bi ràbbale foofu dafa indi rek ñaar fukki melo yi nga xam ne moo yell ci jëmi suñu borom ji waaye fii nag day indi ñaar fukki melo yi nga xam ne moo yell ci jëmi suñu borom ji subhaanahu wa taala ba noppi dogu nga xam ne moom ay arat lañ mooy yi nga xam ne day gaar mbindeef bi fa tabaarakallaahu yépp ko borom bi subhaanahu wa kon fii day indi ñaar fukki melo yi nga xam ne dañoo yell ci jëmi yàlla ja mate ku sëkk waaye nag ne dañuy dàqu ci jëmi suñu borom ji subhaanahu wa taala kon xasida gi dafa jëm rek ci wéetal borom bi subhaanahu wa taala mën nañ ko tàmbali dawal ko dawal bu gaaw incha allah mu ne bisimillahi sos na ma sama wax ci tudd turu buur bi arrahmaani buur bay xëy walaa kon bépp bindeef ci àdduna arrahimi buur bay ajiiram ku ko soob ci alaxera tàmbali na bisimillah ngir di tàmbalee bisimillah amul benn aajo ju mëntu faj amul benn jàngoro ju mëntu faj lépp loo ko tàmbalee rek day am barke barke da cay nekk te waxoon leen barke du ab jëm waaye bépp jëmm jox na barkeen ca rek suñ ko xoolee rek xam ca xam ko place bu mu nekk ña xam ko waaye fu mu man di manqué ak lu mu bëri bëri rek maanaam bu fi barke nekkul dara nekk fa barke daal mooy lépp fu mu nekk mu sakkan waaye fu mu nekkul du sakkan kon tàmbali de bisimilah ger roy mboolem nit ñu baax ñi waaye roy na alquran waaye roy na lépp lu baax bisimilah ba booy dugg ci booy war sa daaba nga wax booy jëm ci wana nga wax booy dugg sa néeg booy génn lépp nga wax bisimilah dafa baax waaye yàlla mi nga xam ne mooy borom yërmande ju daj kàpp ala ahiba yi wa axda yi ñi gëm doon ay soppeem da leen koy sëmbaxtal waaye ñu ko widdi doon ay noonam daleen leen koy sëmbaxtal kon raxmaan moom mu ngi mel ne nga ne xaddabaan sakkaraan farxaan di kat bég na meer na nikk ki du dëkk ci mer rek fokk mu bég léeg-léeg waaye du dëkk ci bég rek fokk mu mer léeg du dëkk du dëkk rek ci man di waaye fokk mu xëq ñi xam fan la nekk kon noonu rek la raxmaan yi mel ñépp ci bokk ñëpp ci bokk yam mu mel ni asamaan taw rek xoolal kii la yiifir dana bay jullit dana bay te ñoom ñëpp buñ bayee seen gétt yi ñor léeg-léeg sax toolab yiifir ñoo gën a meññ bu ab jullit loolu nag natt suñu borom subhanahu wa taala la waaye yàlla muy aji xéewal ku ko soob ci alaxara mooy ñi nga xam ne bi mu leen wàcc ci suuf digal ñëpp ñu jaamu ko ña ko doon jaamu mu di leen teg ay nattu ñuy muñ balaay lu ñuy tiis tiis ñoo ñuy demuñ ba yomal xaame ñoo yaakaar yéen mandi suñu borom bi suñu borom tàbbi leen ci yàlla noonu yàlla boole ci arrahman boole ñi ci arrahim lépp yàlla nañu ci yàlla boole xasida gi tàmbali fii mustafilun mustafilun mustafilun barakatul lasil wujudu wal xidam xat wajjaba lahoo lana tunmil xidam sëriñ bi ne barakatul lasi yiwi yiwi yàlla mi nga xam ne yiwi yàlla mi nga xam ne xat wajjaba war na ca moom lahoo ñeel ko al wujudu am nga wal ak jiitu ga nee na barkeem muy aw yiwam nee na tun dana dollil dana dollil lanaa ñeelul ñun sëñ Tuubaa alxidam liggéey bi liggéey bi jamono ju nekk maanaam dañuy gën a yokk yokk ak cawarte ngir lan barkeb yàlla yiwi yàlla yu ñuy am ci liggéey bi moo tax ñuy gën di dolli liggéey bi jamono ju nekk mooy wéetal gi muy wéetal borom bi subhaanahu wa moom lay tuddee li nga xam ne mooy xidam te xasit gi ci la bokk jàngoon nañ ca mi ni liman loolu wujjóot wal xidam am dun wa sukun wa taqbalal xidam jàngoon nañ ko ci xasida yaas wujjóot ba tey xasida yi yëpp nga xam ne dafay jëm ci taw yi di wéetal borom bi xidam la koy tuddee muy liggéey ndax xam ne nag amul liggéey bu gën a màgg di wéetal borom bi subhanahu wa taala liggéey bu nit da liggéeyal yàlla ba ci gën a màgg mooy di wéetal borom bi subhanahu wa taala baatab barke mu suróon yi même tax yu ci alquran dañ koy firee yiw mooy yiw wu bëri moo tax ñuy firee tabaaraka bëri na yiw allasi bi yadihil mulku yàlla mi nga xam ne nguur ci kattanam la lekk nguur ak lépp lëf waaye nag ak ak malakooti lépp lëf malakooti kulli sayin ak mun mulku kulli sayin lépp ci kattanu yàlla ci la nekk moo tax baata tabaaraka ci alxuraan mu fusiroon yi cëpp dañ koy fiyee maanaam bëri na yiw tabaaraka mooy bëri na yiw kon baraka mooy yiw rek mooy fu mu nekk rek yiwam fa waaye bu fa nekkul rek dara nekku fa maanaam fu ne alal lu mu bëri bëri bu fa barke nekkut yiw nekku fa dara nekku fa waaye lu mu tuuti tuuti bu fa barke nekkee rek léppam fa léppam fa kon barke daal mooy jëmm jox ne bu ko nit ko amee ñàkkul dara waaye bu ko ñàkkee ñàkk na lépp moo tax kon baatam barke mag ñi di ko firi yiw kon daal soo ko bëgg a firi dang naan maanaam yiwi yàlla mi nga xam ne maanaam moom ci boppam dafa war ci jëmmam ja am muy annafsiya mooy yàlla am na waaye bi mu amee kenn amalul ko ndax loo dégg ñu ne am na dañ koo amal juddu na barab sàngam doon na xale doon na mag faatu na sulaat nañ ko kon kooku meew am na waaye dañ koo amal waaye faat nañ ko dugalaat ko kon dañ koo jëlee ci xaddam mu ñàkk amal ko waaye ba noppi dellu faataat ko sulaat ko ci biir bàmmeelam mu doonaat xaddam dégg nga yàlla nag mooy ki am waaye kenn amalu ko kenn sàkku ko waaye mooy amal lépp ci coobaram da ko xool mu nekk rek mu amal ko waaye mooy ki jiitu ba noppi te jiitu ko am fu mu tàmbalee waaw yàlla moom dafa jiitu waaye jiitu ko duñ naan fii la tàmbale déedéet waaye itam amul fu muy yem waaw fu muy yàlla moom nag ñaari turam yi dafa war ca moom al wujudu mooy an nafsiya mooy tur jëmm jën dëgg-dëgg moom la ñuy wax an nafsiya waaw nee na yiwam yi nag barkeem nee na dana danañu dollul ñun Sëñ Tuubaa li nga xam ne mooy liggéey bi maanaam yiw yi nga xam ne moom la ko yàlla di jox nee na yiw yooyee ci boppam da koy dolli gën a góorgóorlu muy liggéeyal borom subhaanahu wa taala di ko yital moo tax mu ne barakatu la si barkeeb yàlla mi nga xam ne xat ca dëgg-dëgg wajjabaa war na loxoo ca moom dëgg-dëgg war al wujudu am yàlla ko am la te kenn amalu ko wal xidam ak jiitu ko nee na nag barkeem bim ñee tëbb nee na tur mi dana dolli ñun sëñ Tuubaa lanaa ñeel nu alxidam liggéey moo ñee dolli ñi koy gën di wéetal moom borom bi subhaanahu wa ngir yiw yum ñee pay moom borom bi subhaanahu wa ne subhaana sil baqaa'i wal muxaalafa man qaadali nan bila muxaalafa mu ne subhaana sil baqaa'i tudd na ma selluk yàlla muy borom deska wal muxaalafa tay doon koo xam ne dafa wuuteeg lépp lu mu sàkk man mooy ki nga xam ne moom yàlla mooy fayal ji xaada womat na lii ñexel ma am na sécurité bilaa muxaalafa ci lulut may wuuteeg moom moom yàlla du ma wuuteeg moom mukk ay digleem rek te bàyyi ay teram kem sama kàttam ci lay nekk waaye du ma wuuteeg yàlla mukk waaye lépp lu ma soxla itam mu jox ma ko nee tudd naa sell foofu da koo bàkk kañ ko nga xam ne waxoon naa la Sëñ saa yu wax yàlla lii yàlla day bëgg day kontaan ne ay waaye sama jàmb yi di ma màggal di ma sellal bokkaaliwun ma waaw bokkaaliwun ma ndax foo jàng daal Alquran gis nga lu mel ni surtout saafaat subhaana rabbika rabbil izzati wa salaamun ala muslimin walhamdulillahi rabbil alamin loolu rek lay signifié mooy yàlla dañ ko doon tëq la dafa ay doom yu malaaka yu jigéen lim bind yëpp da cee toon da cee tànn ay doom yu jigéen nga xam ne lu gën a ñàkk solo moom la ko musrikoon ni doon tëqal yàlla muy doom yu jigéen te ñoom sax arab yi bu ñàkk bu ñu amoon doom yu jigéen dañuy dem ba ca àll ba ñu gas am kàmb suul ko ndax ku amoon doom yu jigéen da ngay jàpp ne maanaam loolu gàcc la ci yow loolu alxuraan moo ko fa jëlee alxuraan dafa yuuxu lool wa isal waay waay bi ay san bi qutilat ma fere wi nga xam ne dañ koo jur waay waay laajis na ko ana ban bàkkaar la def bañ koy rey qutilat bañ koy rey ci yàlla loolu alxuraan moo fi jëlee kon l'islam maanaam jigéen war naa sant l'islam war naa sant l'islam parce que l'islam moo ko jëlee ci loolu moo tere loolu waaw a janga ca alquran wa isa busira ahadum bilun sa salawatu musadan wo kasimun yatawara min alqawmi min so ima busira bi ayumsuko ay way way halahunin am yadu so ma ndax dang koy doxal wa am dang koy dal fi trois bi ci biit suuf ala sa ma yanku bon ñi doon def lool ñoo bon seenu xatte ay waay waay jur doom ji jigéen bu noppi jàpp ne yow gàcc nga def dem ba càll ba gas ba xam xóot dal di suul ko ca jàpp ne gàcc nga def moo tax sëñ Tuubaa ne tudd na ma sell ak yàlla muy borom des ga mooy ki nga xam ne bu fi ñëpp béy ko moom rek moo fiy des waaye mooy ki nga xam ne dafa wuuteeg lépp lu mu sàkk te mooy sàkk lépp wa xayrullaahi lillaahi lahul wujudu la si xat saanul xidimun mahal baqaay wa xayrullaahi lillaahi yàlla moom mooy yàlla waaye lépp lu dul yàlla maanaam maxluux la yàllaa ko sàkk moo tax mu ne yàlla mooy ki moomatal ak sécurité fu mu mën di nekk kuliteeg suñu borom rek ci lay nekk te nee ne yàlla du wuuteeg man mukk <laughs> yàlla du wuuteeg man mukk lu ma bëgg rek yàlla fekk ma ca subhaana sil baqaay tudd na ma sell ak yàlla muy borom des wala muxaalafa tey borom ak wuuteeg lépp lu mu sàkk niroo wut dara fu ne lu ñu naan niroo nag yàlla amul lay sa kamis lay oon déedéet man yàlla mooy ki nga xam ne xaada womat na li joxo man Sëñ Tuubaa am na sécurité bu day sëkk kenn du mu mën a lot bilaa muxaalafa ci lu muy wuteeg man mulku la si nguurug yàlla mi nga xam ne loxoo ñeel na ko wajab war na loxoo ñeel ko alqiyaamu taxawee bi naf si boppam nee na nguuram ga nee na xaada wommatal na ma ala ajab kéemaan ya ilaa kulliyati jëmee sama biit lépp lépp lépp <laughs> dégg nga xam nga sëñ tubaa dafa yéeme lu ñuy wax baraatul istixlaal ñi jàng xam nañ ko gis nga itam bi may wax ci xasida ak Mafaatul Jinaan diwaan boobu daf ne mulkul xaliil baaqil xadim dafa dafa xam ne maanaam loolu kenn mën a koo dindi nguurug yàlla mii aji kawe tey ki fee sax ba faw gis nga tur yi muy bolante daal dina jaxal la ni asnaa xadim moo ma def ku ci man dara moo ma def may aji kawe ma doon ki gën a kawe ci ñuy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi noonu nag loolu ngëneel lu ma yàlla defal la yàlla xool ku ko neex rek nee na loolu ngëneel lu ma yàlla defal la fii nag mu bëgg laa waxal ne nguurug yàlla mi nga xam ne yàlla moom kenn du ko def loo dara waaw moom dafa mënee boppam sëkk mën a taxawee boppam mën a féetee fépp boppam kurul yàlla nag dañ la taxawee judd nga ñu taxawee la nga faatu ñu taxawee la ngay dund ñu taxawee la lii yëpp tabarka la yàlla nag mooy ki nga xam ne mooy alqiyaam bi alxiyaam bi nafsi nee yàlla moom nag moo ma dugal ci biir nguuram ko ba nëpp woo matal ma ay kéemaan sëñ tubaa léppam kéemaan la sëñ tubaa moo tax sëñ tubaa bu la jaaxalee rek dellu la sëñ tubaa saat saatu yonente bi la jaxal la ni laahu taala aaya moo ji sa tan wala qaada laaya yàlla sama borom tabaaraka wa taala moo ma def may aaya sëñ tubaa nee ne la ba yàgg ne moo ji saat laa sax moo ji saat laa moo saat mooy loo xam ne maanaam ku dul yàlla dañ cee lot fu ne yónent sax mantu feeñal mujjisaat lu dul yàlla feeñal ko ci moom te mujjisaat Sëñ Tuubaa neen la muy tegtale yàlla bu ko feeñalee ci ab yónentu la muy tegtale mooy yónent boobee du yàlla waaye nag nit nañ ko yónnil yàlla dafa bëgg nit ñëw bu yónent bi feeñalee mujjisaat ñu xam ne kii ab yónentu la ñu man koo gëm moo tax nag kon Sëñ Tuubaa lépp mujjisaat la Sëñ Tuubaa moom ci boppam keemaan la yaa man bi bihi laa sama nii xayrul ajib nee na yàlla ma tëqal ngeen ci ay keemaan dégg moo tax mu ne mulkul la si nguurug yàlla mi nga xam ne wajabat war na loxoo ñeel ko sakk ca boppam alqiyaamu taxawee bi na fi ca boppam yàlla maanaam dafa mënee taxawee boppam ku dul yàlla nag dañ lay taxawee nee na yàlla moom xaada wommat na ala ajab keemaan ya ilaa kulliti jëmee ci sama biit lépp lépp sëñ tubaa keemaan la fu ne ba ci ay xasidaam ay taalibam sëñ tubaa loo xool rek bis bu ne da lay gën di yëm loolu mooy kemaan la lépp sëñ tubaa fu ne moo tax buñ ko tuddee nga jaaxle cooy cooy sëñ tubaa fu rek cuy cuy rek ngay wax du amul beneen bat boo ca teg bu dul cuy sëñ Tuubaa moo mel noonu mu ne alhamdulilahi taala waxda kamaalowul xamsu tihi wal ala am du mboolem xaaji cant yee ñeent lillahi aji sax la ñeel yàlla taxalaa muy aji kawe waxda moom dong kamaaloo comme ni nga xam ne noonu la ko ñeela alxamsu juróomi tur tihi yii wal waxda ak ak kennam ka mooy ku wét ka muy juróom benn mu ne mboolem xaaji cant yee ñeent cant gi yàlla cant boppam ci alhamdulilah ak cant gim cant ab jaamam ci nixmal xabdu ak cant gi nga xam ne moom la jaam ñi di cant yàlla ak cant gi nga xam ne moom la jaam ñi di cant di seen biir nee na mboolem xaji cant yëpp boo koy xool muy niru ñu koy paasante lépp day dellu ci yàlla moom kenn képp ko moom alhamdulilah rabbil alamin yàlla bi mu sàkkee lépp dafa sant boppam nee yàlla moom mooy aji kawe ji mboolem xeeti cant yëpp ñoon la ko moom dong comme ni nga xamee ne noonu la ko ñëwee turam yi te kenn du ko ci fekk turam yan mooy lan muy al wujudu mooy al nafsiya mooy dafa am te kenn amul ko waaye nag mooy al xiddam mooy al baqaaw di al muxaalafa di al qiyaamu bi nafsi waaye nag di al waxdaaniya yii la ñuy wax asalbiya juróom benn tur yi moom la ñuy wax benn ba nag moom la ñuy wax nafsiya su ko defee yeneen juróom benn yi ci topp moom la ñuy wax yooyu moom da koy gëm rek gëm ko rek salbiya day tekki ak dàq waaye da koy gëm ne yàlla daal turam yi moom rek ko jagoo du mbindeef mukk mbindeef mukk xajalut ci benn mbindeef lépp mbubi yàlla la moom kenn képp lépp ay melo la yoo xam ne melo yuy tëq ca jëmmi suñu borom ji subhaanahu wa la moo tax mu ne alhamdu mboolem xeeti cant yee ñeent yëpp lillaahi aj sax la ñeel yàlla taala moom mi aji kay wax da dong moom kenn képp moom la ñeel kamaaloo comme ni nga xam ne noonu la ko ñeele alxamsu juróomi tur tihi yii mu mu jox la al wujudu ak qidam albaqaaw ak al muxaalafa ak al qiyaam bi nafsi léegi nag moom la yow kamaalul xamsu tihi mooy juróomi tur yooyu léegi nag boo ci tegaatee beneen ci kon an nafsiya ak salbiya moo tax mu ne kamaalul comme xam ne noonu la ko ñeelee alxamsu juróomi tur tihi yi wal waxda ko xam ne dafa wéet ak euh, kenn du ka mooy koo xam ne dafa wéet ci melo wéet ci jëmm wéet ci jëf moom borom bi subhanahu wa taala